mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ubbee suñu jotaayu tey jii ci ajjumay koor ci nuyoob lislaam boobu làmboo jàmm ak yërmande ak barkeb sunu borom subhaanahu wa eh, di jiital ci nuyoo boobu ki nga xamante ni moom la yàlla dogal muy kilifa pénc mi mooy Cheikh Ahmad Mbacke Chouaïbou ak mboolem njaboot gi di leen ñaanal fan wu gudd wi ak wér ak tawfiq sunu borom ak mboolem ñi nga xamante ni ñooy taxawu jàkka ji muy ay imaam yi ak ñi nga xamante ni ñooy saytu jullin wi ak sàppe yi di ziyaare itam waa daairatu quratul ak mboolem rek ñi nga xamante ni ñoo séq wàllum liggéey bi di sàkku ci ñi nga xam ne ñoo wër jumaa ji te xëy na toog ci garab yi ak yu mel noonu ñu gën a jege si dugg ci biir jàkka ji ndax waxtaan wi mi ngi mi ngi tàmbali ndem li dem ci waxtu yi dafa bari du ñu guddal dañuy daal di dugg rek directement ci tomb bi euh, ci tomb bi laay wax nag duma wax ci kii def tomb bi ndax sëriñ Bachiru Mbàkke Abdul Karim képp koo xam ne day topp waxtaan yi ci yoon wi eh, yaakaar naa ne umpale woo sëriñ Bachiru rawatina fii ci penc mii nga xam ne moom ñëpp xam nañ ko fi ndax jànge na fi te itam mën nañu wax ne sax fi la dëkk loolu nag kon dañu daal di dugg ci li muy waxtaane muy ñaari tur ci turi sunu boroom yi nga xamante ni dañ leen di tuddee asmaullahi alxusna ñaari tur la teq ci biir tur yooyu muy arrahman arrahim ñaari tur yooyu nag la def ab jàngat bëgg ko bokk ak mbooloo mi kon muy nafarante wala boog nañu wax muy ab bind boo xam ne tey daf koy tëral ci ñaari tur yooyu ñépp xam nañu tolluwaayu asmaullahi alxusna ak seen daraja ak seen maqaama ndax doyoon na ci sëkk rek xadis buy wax ne yàlla am na juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent benn bi dane man axsaaha daxalal janna benen riwaya bi mu ne man xafidaha dakhala al janna waye lepp lo xamanteni gal nañ ci wala toftal nañ ci aljana ñepp xam nañ lu reuy la lolu nak motax señ sëñ ci njangat yoyu munta indeenoo juróom-ñeent fukki ñeent yépp ndax limu mu bari waye mu tan ci ñaar muy arrahman ak arrahim te danaka mën nañ wax ne dajna kapu aduna ak alakhirah lan motax señ sëñ tan yoyu loolu ban jokkaloo la am ak barab bi ak borom barab bi loolu ak sunu dund gi ñu nekk ak sunu doxaliin ak itam loolu ak sunu jëmiin ak sunu delluwaay ëllëg yépp sëñ Bachir dana ko ci leeral kon dañ koy jox kàddu gi te di fas yéene koo déglu bu baax a baax ngir jariñoo ci di ko ñaanal tawfiq sunu borom wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalib yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi bi ak ziyaar bi ñu ci jiital kilifa penc mi mu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi loolu tamay ko ak wér te dolli kàttanam ba li mu yéenee liggéeyal maamam ci liggéeyu islaam lépp suñu borom mottali ko ci barke Seexul Xadim te nu di sant waa daairatu Xuratul Ayni bu baax ñoom itam ci jataay yi amal mu mel ne jotaay la boo xam ni ku ko amal rek ñëpp amel nañ la njukkal ndax naa di wax lu bari ni euh, yoonu murit amuñ jafe-jafe bëgg lu baax pas-pas am nañ ko bëgg nañ lu baax lu ñu def rek ñàkk xam leen ci joo kon ku woote jëm ci xam-xam rek ñëpp war nañ daa sant moo tax sëriñ bay jax day wax ne lu bon taxul kenn jóg kuy dox di def lu bon it seytaane mbër ma da ko man waaye jubluwu ko mu mel ni boo gisee ñu tànn tey jii ñaari tur muy arrahmaan arrahim dañoo baaxoo won di waxtaane tur yàlla yi tàmbule ko ci allah arrahman arrahim ndax loolu dafa bokk ci tawxid dafa bokk ci jàng jàngale tawxid jàngale tur yàlla wane la muy wundu ak la ko tax a jóg ak it eh, hadis boobu sëriñ bi wax léegi muy yonente bi wax ni yàlla dafa am juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ku ko takk dina tabe aljanna loolu taxoon na ñu jëloon asmaullahi alxusna yi di ko jàngat benn par benn benn par benn tey jii nag li tax ñu tànn arrahman arrahim di ko jàngate fii ci penc mi mooy am gumu am relation ak borom penc muy a cheikh Souhaïbou radiyallahu anhu mu doon jëmu joo xam ne li gën a fés ci ay jikkoom mooy yërmaande moo taxoon ñu indi ñaari tur yooyu ngir jàngat ko li tax ñu di ko jàngatit bëgg nit ñi mën koo jariñoo ndax doomu aadama suñu borom daf ko binde nii su borom dafa bind mbindeef yépp ci ku ne rek la nga doon mën ngaa doon safaan ba loo doon rek mën ngaa doon leneen la ca des doomu aadama bokk ci mbindeef yooyu yi am sun sun borom rëddal ko ñaari yoon yoo xam ni fu ci jaar jàll waaye nag fu mu ci jaar fu ne dafa mu jëm sëñ Mourou Gallo daan wax ni yoon boo gis ci dëkk la jëm boo ci jaaree te koo wàcc da egg fa nga jëm sun boroom bindal doomu aadama ñaari yoon yoo xam ni di ciy tànn rek benn mën naa jaar ci aw yoon yéeg jëm kaw mu yóbbu ko ba fa kawe ci aljanna yi waaye mën naa jaarit ci aw yoon baras ci ku jëm suuf mu yóbbu ko ba ci fi darakil asfali mina naar loolu yi la dogal ci nit ki kon noonu la sunu borom leerale mbirum doomu aadama inna inna hadaynaahu imma shakiran wa imma kafuran nit su borom daf ko bind won ko ñaari yoon ni ko bu la neexee nga jaar fii nekk shaakir fii boo fi jaaree nekk shako nekk kafoor te mooy yoon wu lay yóbbu ci alal illiyina fil janna wala mu yóbbu la ilaa ila darakil asfali min an naar mu dellu wax ni wa hadaynaahu najdayni nit ki su borom bi mu ko bindee jox ko am xel daf ko won rek ñaari yoon ne ko yi lii mooy yoon bu baax wi lii mooy bu bon la ci yaay tànn kon nit dafa mel ni dafa nekk ci li ñuy wax seli bi yoon aw yoon woo xam ni bii daa jàdd jëm ndijoor bii jàdd jëm càmmooñ mu nekk ci digg bi ñu ne ko nag yaa ci tànn bii daal boo ci jaaree fee nga jëm yoon wi boo ci jaaree yaa nga jëm fële waaye nag yàlla jox ko am xel jox koy tànk jox koy bët jox ko ay nopp la ca des nag mooy lépp lu mu waaj fas ko yéene rek sunu borom jàppale ko ci nit ki mooy tànn rek loo tànn rek yàlla moom la muy liggéey lépp mooy loo ci tànn rek mën la caa jàppale fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra te mooy yoon wi boo ci jaaree ma jàpp ndalal la ak mbaax nga mën a jàll waaye wan wa amama baxila wastaxna wa kazaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kon sunu borom li doxal diggante mag nit ki mooy mooy tànn boo tànnee rek mu jàppale la loo ci tànn rek mu puus mu puus la ci sunu borom bind adduna ak alaxira wax man kaana yuridul يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وإلى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدهورا موي بن بما خن ليك رك مو خني كو خامني ادنا كبال نيور ليغا ييغو ليب ادنا كبال تاخ ييغو يونو يالا نيو سي يونو اليك نيو سي داني لا جوخ لي لا نون سوب سي ادنا لا نون سي نيه داني كو سيت ني جوخ لاكو وايي نك اليك امو فا دار لودو سفر daañu waaye nag wa man kaana yuridul xayaat man araada al axira wa saa laha wa huwa muminun waaye bu fekkee da ngaa tànn ëllëg jëf-jëfi ëllëg ànd ku ngëm fa ulaika kaana saayuhum maskura jëf kooku ñooñu de seen jëf-jëf juñ sant la daal dina wa haulaai min xataay rabbik muy ñee tànnoon adduna ak ñee tànnoon àllaaxira ñoo ci am ku ci ne rek suñu borom dana ko jox yërmandeem xataa u kon yërmande lañ ci jublu foofu yërmande yàlla ji nga xam dafa daj kapp fii ci àdduna muy baatub arrahman muy jullit bi ak yéefar bi ñoo ci am képp foofi jàng jëm te góor góorlu ci rek ndimbal fekk la ci mu mel ni kon bu ñuy wax arrahman muy yërmande ju daj kapp fii ci àdduna ñëpp yem ci mooy yërmande ju généralisé jullit bi ak yéefar bi ku baax ki ak ku bon ki ñoo ci waaye nag mu beneen yërmande boo xamante ni xaas la dafa am ñu ko suñu borom jagleel yàlla bi mu nekkee arrahman arrahim kon ñaari tur yooyu loolu lay wundu li ci am boo xam ne dafa généralisé jullit bi ak yéefar bi ku baax ki ak ku bon ki kii kii mooy ñëpp ci yem muy baatub arrahman arrahim nag mooy mbakkar fegg wa mu beral ab jullit ëllëg ñaari tur yooyu imam xasal day wax ni ñaari tur la yu jóge ci ar rahma sifatu rahma melow yërmande ci lañ ko jële sifatu raxma bokk ci yërmande bokk ci meloy sunu borom yi di sifatul kamal di sifatul jamal melow mat la waaye melow taar la sunu borom ñaari melo lay faral di am lii melow jalaal lay doon lii jamal jalaal ak jamaal nag bu ñu ko doon misaal dañ leen di dañ koy misaal ci ni jamaal mi ngi mel ni ñu teg biteelu lem ne la lem lem gaa ngi nii bu dee jamaal nag mooy ñu fab ab yar jalaal mooy ñu fab yar bi ne la defal bu dee lii ne dañ laa indil keesu tàndarma wala lem wala dara li ñëwal jël mi ngi nii boo ko defee nag dañ ci jot noonu lañuy misaale jalaal ak jamaal jamaal façon aw tàng jamaal bànneex la ci lañ lay xëcc nga ñëw jalaal nag dañ lay puus ci force ak luy metti pour nga def ko waaye fekk suñu borom li ko ñor ci jaam bi mooy mu def li mu bëgg boo ko defee jaar ci sifatul jalaal te mooy xeymam ba def si ko falil alhamdu bu fekkee da nga ragal ba dem def ko falil alhamdu waaye def gi rek mooy li ëpp solo ci jaam bi kon arrahman warrahim ci sifaatul jalaal lañ bokk bokk yit ci sifaatul sifaatul jamaal lañ bokk bokk yit ci sifaatul kamaal subhanahu wa taala mu doon melo yoo xam ni melo woo xam ni muy melow raxma sun dafa sax dafa sax ñeel suñ borom kenn waru ko dàq ci genn anam ku ko dàq ak noo ko dàqee moo xam da koo dàq teg ko ci kaw suñ borom nattu la nga jàpp ni natt boobu yi kon du yërmande nga bëgg caa dàq yërmande yàlla ngir nattu bi mu la teg mbaa mu teg nit ab nattu nga jàpp ni kon nattu bii dafa dàqoonte ak yërmande yàlla ak noo dàqee sifatul rahma ci yàlla rek na nga xam yaa ngi dugg ci ña suñu borom di tëkku ci alquran ni inna alladina yulhiduuna fi asmaihi sayujzawna ma kaanu yamaluun yaa ngi dugg ci ilhaad saa boo dàqee melow yërmande ci yàlla ak noo ko dàqee rek yaa ngi dugg ci ilhaad bob yi suñu borom di tëkkoo boo ko yëgee ak boo ko yëgul ilhaad mooy weddi nit nag mën naa dugg ci ilhaad boobu yi weddi te du ko yëg du ko yëg ndax nattu bu suñu borom teg nit mu jàpp ne du yërmande ak ñàkk xamam la waaye xamut ni natt boobu sax jëm yërmande ji taxaw la natt bu suñu borom teg nii rek ci cadre yërmande lay dugg yërmande lan lay tekki dëgg dëgg dëgg arrahma lan lay tekki li muy tekki mooy boo gisee ku ñàkk yëg-yëg ba nga yëg ci sa xol ci yéene ko ab am ab am am mbaa nga gis ku tawat yëg ba nga yëg ci sa yéene ko ak wér mbaa nga gis benn nattu bu suñu borom teg nit lu metti yëg-yëg ba nga yëg ci sa xol yéene mu dañ loolu la ñuy tuddee arrahma kon yërmande mooy yéene nit ki am aw yiw mbaa nga yéene lor tegg ko tegg ko ci moom yëg-yëg boobu rek moom lañuy ñuy tuddee yërmande waaye nag la ca dolli kuwaat mooy ñu xam ni yërmande du yëg-yëgu xolu kese kese kese faw nga yëngu ngir lam ñàkk nga may ko ko mbaa la ko dal nga teggil ko ko yëngu ngir teggil nit ki li ko dal mbaa la mu ñàkk nga yëngu ngir may ko ko loolu yi mooy mottu li waaye du yëg-yëgu kese bi nit ki saabu gisee nit mu doon ko ñàkk amul ab dépasse nga mën ca dépasse bi dara te defoo ko defaloo ko ko lu wees taxaw di wonk képp képp ànd ak moom di wonk loolu desu ko tuddee man naka noonu nit ko tawat nga mën ca lu leer benn man ko yóbbu ci docteur yi ñu faj ko mbaa mën ngaa jënd ordonnance bi mbaa nangam nangam loo ci mën ta defoo ko rek toog di ko wonk wonkale taxul ñu ñuy wax ni yow rahim nga nekk gu yërmaande yër aji yërëme ba tey li fekk mën nga dara defoo ko rek kenn du la jàppee aji yërëme ñaari tur la muy arrahmaani rahim dikk na ci alquran ar Rahman kese dik na ci lumat lu mat ag fukki yoon ak juróom-ñaar ar-rahim buñ ko multiplier dik na ci alxuraan téeméeri yoon ak fukki ñent mu mel daf melni ni ar-rahman ñewé di juróom fukku ak juróom-ñaar dañ ko multiplier par deux mu ar-rahim mu yermane ji nga xamne ne suñu borom daf ko jagleel julit bi ëlëk ñom ñaar ñu lëkkaloo ci juroom benn barab ci alquran arrahman arrahim ñaari yoon dañoo lëkkaloo ci alxuraan lu mat juróom benn yoon baatu arrahman nag suñu borom daf koo jagoo dëgganut nga di ko wooyee kenn nit dëgganut ñu koy wooyee arrahman bu dee arrahim nag dagan na nga wooyee ko nit ngir suñu borom tudd na ko yonente bi sallallahu alayhi wa ci alxuraan ni wa bil mu bil wax ni bil muminina raufur ku am ak ñawante la ci jullit yi ku am yërmande la ci ñoom rahmaan lañu cee jublu mooy yàlla ki melowoo melokaan wi daj kapp melokaan wi daj kapp ci àdduna ak alaaxira rahmaan dafa daj kapp àdduna ak alaaxira jullit bi ak yéefar bi ku baax ki ak ku bon ki kii topp kii mooy ñépp ci yam ñépp yam ci baatub ar comme ni suñu borom waxee ci alxuraan li ma wax aaya bi ma waxoon léegi ni kullan numiddu haulaai wa haulaai min ataai rabbik te mooy yërmande yàlla jullit bi ak yéefar bi ku ci ne rek boo ko sàkkoo wala boo ko sàkkoo sax suñu borom dana la ko jox kon xataa googu yërmandem jooju daj kapp la ci jublu kon yërmande may googi suñu borom di wax mu yërmandeem ji daj kapp nit ñi te mooy lépp lu nit aajowoo rek suñu borom dana ko ko jox bu fekkee jox na ko gëdda du ko tënk nag ci pas-pasu nit ki akuk ñàkk paseefam waaye lépp lu nit itteewoo ci àdduna ak mbiri àllaaxira te nangu caa sonn mu doon sa ittee suñu borom dana la ko jox loolu mooy kullan numiddu haulaai te mooy ñi weddi wa haulaai ak ñi gëm min ataay mu yërmande yàlla yàlla du ci musal kenn ndax yërmande yàlla ju daj këpp jooji bu ñu xoolee gis nañ ne suñu boroom ni mu bind doomu aadama jullit bi ak yéefar bi mënu leen xajale ci ñaari bët yi leen suñu borom jox jullit ak yéefar xàjjale ko woon ci ñaari nopp yi leen suñu borom sédde jullit akub yéefar xàjjale ko woon ci ñaari loxo yi leen suñu borom sédde jullit akub yéefar xajale ko woon ci ñaari tànk yi leen suñu borom sédde kon yërmande yàlla ci kaw suuf jullit akub yéefar ñoo ci am ku ne am nga ñaari bët ay yërmande la ku ne am nga ñaari nopp ci yërmande yàlla bokk ku ne am nga ñaari tànk ci yërmande yàlla bokk ku ne am nga ñaari loxo ci yërmande yàlla bokk te loolu kon jullit akub yéefar ñoo ci am mu mel ni kon genn may gi ci li suñu borom di may nit ci àdduna wuute wuute ak may gam may sa moroom waaye nag nangeen koy exploité nag foofu la wax ji di nekk kon nit ki mooy jël yërmande yàlla jooju muy may googu mu ko may moo xam bët bi la wala tànk bi la wala nopp bi la wala loxo bi la mu jëfandikoo ko ci yoon woo xam ne mën na koo yóbbu safara waaye mën naa jël may googu jëfandikoo ci yoon woo xam mën na ko yóbbu ca àjjana ji a kawe kon jullit bi ak yéefar bi différence bépp weesuwul yéene nit ki ak fam jàng jëm waaye li leen suñu borom jox muy ay jumtukaay ñoo ko tollale kon ni suñu borom waxee ci alquran ne wan nazil min ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين داجي تك واي نك ولا يسيد الظالمين الا خسارا القران جي جن لا يرماند لا نيال بي بيرسما لا يفر با بن بن بن موي موي لي ما واخ لغي موي بيت بيم لا جوخ nga dund ab julit bët boobu la jox yéefar mu dund ab yéefar da nga koo xoole fii kay xoole ko fee nopp bi mu la jox nga dund ab tànk yim la jox nga doon ab jullit kee doon dañ cee dox lii kee dox ci lee waaye may gi genn kenn ku ne nag yaay seet noo ko exploité kon alquran jooju suñu borom wax ni yërmande ci jullit bi waaye du dolli yéefar bi lu dul pertement mu ngi mel ni caabi joo roof ci birëb boo jëmale nii day ubbi boo jëmalee nii day tëj benn programme bi naka noonu lépp lépp xéewal gu suñu borom defal jullit bi defal na ko yéefar bi waaye jullit bi daf ko exploité ci fànn sàngam yéefar bi utiliser koom ci geneen wér gi wax jëpp foofu la nekk loolu mooy arrahman kon ci ni daje kapp mbindeef yi ñu baax ñeeg ñu bon ñi jullit bi ak yéefar bi kii topp ak mooy ñëpp yam ci arrahim nag suñu borom daf ko jagale jullit bi ëllëg wax ni wa kaana bil muminina rahima delluwaat beral leen yërmande ni fasa aktubuha lilladina yattaquun mooy ñi amuk ragal yàlla nag laa bindal sama yërmande ji ginnaaw bu mu ko généralise ni wa rahmati wasiat kulla cheyin dafa beralaat jullit yi yërmande ni fasa aktubuha lilladina yattaquun kon rahim yërmande yàlla jëm beral ab julit moom la ñuy tuddee arrahim loolu kooku doon misaal ci dund bu àdduna da wax ni boroom kër gi dépasse bi muy jox ci kër gi ñëpp ci am la muy mbakkar feggul ka ka ka doomam ja ja tegu ci aw yoon baax di def la mu bëgg di bàyyi la muy tere nag loola bokkut ak dépasse bi nga xam ñoom ñëpp ñu ci am arrahman kon jullit ak yéefare ci am arrahim yàlla daf ko beral ki nga xamante ni moo ko féetewoo ibnul xayim radiallahu anhu day net li jële ci sëriñ bi ñuy wax asuhayli mu wax ni li tax suñu borom boole ñaari tur yooyu mooy arrahman arrahim la tax mu mu boole ko mooy daa jubloo leeral yërmande yërmande yi tey ji nga xamante ne suñu borom daf koy gaawee nit ki ak yërmande ji nga xam ne suñu borom daf koy denc ngir ëllëg ak yërmande jëm jagleel jullit bi ëllëg ak yërmande ji nga xamante ne daf ko généraliser fii ñëpp yam ci dafa wax ni asuhayli wax na ni li tax suñu borom boole ñaari sifa yooyu mooy leeral ni bii dafa gaaw bii dañ koy denc ba ëllëg bii ñëpp ko bokk bii ñi dafa am ñu ko ñu ko féetewoo waaye ginnaaw bu mu leer la wax yi suhayli yi yooyu ba noppi nag daf ko taqib wax ni nag waaye boole giñ boole ñaari tur yooyu nag mu arrahman ak arrahim kat am na maanaa mu gën a rafet ñaari maanaa yooyu suhayli yi wax loolu ibnu xayim moo ko dolli ci ginnaaw bu mu jeexalee waxi Suhayli yi ba noppi ba noppi dafa wax ne waaye ñaari tur yooyu kat lëkkale gi ñu lëkkale am na meneen max naa mu ci dolliku mu gën a rafet loolu yi mu wax daal ni lam lam la ci dolliku mooy rahman dafay tegtale melow suñu borom nii suñu borom melow woona arrahma arrahim dafay tegtale jëf gu muy jëf yërmaande ci mu ni kon lii aw melo la bu ci moom lii jëf gi mu koy jëf mu def mu aju ci ka mu yërëm mu indi ñaari baat bu njëkk bi kon aw melo la waaye bu ñaareel bi jëf la wax na ni max naa mii moo gën a rafet nga yemale ko fee rek loolu la ibnu xayim wax ci ginnaaw waxi Suhayli joju yaa toog yërmande yàlla la ca jëkk te sunu borom saxal ko ci alquran mooy wa rahmati wasiat kulla shay'in sama yërmande daj na lépp kulla shay'in nag buñ ko waxee dara génut moo tax dañuy wax ne ba sunu borom ne wa rahmati wasiat kulla shay'in iblis dafa yokkamtiku ni ana shay'un min al ashiya dara laa ci yooyu yi ngeen di wax kon kon dugg na bu ko defee la koy génne nag mooy bergay mu ko bedu ne fasa aktubuha lilladina yattaqun mooy génnewaat kon ki amul taqwa ci saxi saxiixu buxaar yi jële ci abu hurayra radiallahu anhu mu nett li ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni yàlla bi mu bi mu bi mu bindee mbindee fii dafa bind mbind mum teye fa moom wax ca ni rahmat inna rahmati taglibu ghadabi nee na bi mu bindee mbindee fi ba ba noppi dafa bind mbind moo xam ni ab téere la ko def téye ko fa moom ca ca aras ni sama yërmande moo not sama mer loolu dañ ciy dégge ni rahma xuwa la kàttan la xadab quwwa la waaye fi mu toll nii la nga lijjantee mer lijjantee ko xaat-xaat lijjantee ko xuloog xeex boo ko lijjantee woon ak tekk aku tekk ak tey ak yërmaande mooy gën a gaaw loolu mën nañu ko déggee ci xadis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax muy xadisul xudsi yi te suñu borom wax ni inna rahmati taglibu xadabi danañ ci déggee ni lépp loo lijjantee xaat-xaat nga lijjanti woon ko ci njekk ak teraanga ak tey moo ko gën moo ko gën a gaaw moo ko ëpp doole ci saxiix muslim ñu jële ci yonent bi sallallahu alayhi mu wax ni suñ boroom ba muy bind yërmande daf ko bind muy téeméeri yërmande te yërmande bu ci ne daj na diggante asamaan ak suuf fees na diggante asamaan ak suuf ci saxiix Buxaari ba tey yonente bi wax ci ni sallallahu alayhi wa sallam ni suñu borom ba muy bind yërmaan daf ko def mu doon téeméeri xaaj juróom-ñeent fukk yépp ak juróom-ñeent daf ko téye benn bi la wàccee fii ci kaw suuf mbindee fi di ci yërëmante ba ci aw fas sax bu ko bu yëgee ni doom jaa ngi ci doon tànk bi day yëkkati tànk bi ngir bañ koo gaañ ci benn yërmande bi ñu wàccee fii ci la yërmande ji daje kapp ci mbindee fi noonu Umar ibn Xataab radiyallahu anhu nettali ni benn bis dañoo indi ay prisonniers ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbooloo moomu ñu gis ci benn jigéen buy wër ci ñiñ jàpp di wër ba gis benn xale daal koy jël taf ko ci biir bi tàmbali ko nàmpal lépp yonente bi mi ngi koy gis yonente bi ndax jàpp ngeen ni jigéen ji dana fab doomam ji di ko tàbbal safara ñu ne ko du ko def te di ko tay de mun nag yërmande yàlla moo ëpp yërmande jigéen jii ci doomam ji pour wane ni yàlla dafa bind nit ñi ngir yërëm leen kon li ma waxoon léegi dëgg-dëgg yërmande nag ba tey day laaj liy jariñ ki nga yërëm nga nga fexe ba mu jot ca ak donte naq donte neexu ko danga nga yërëm nit ki dugal ko ci loo xam ni du ko neex moom jëm boppam lu mel ni sa doom ju ndaw juy yóotu xalu safara nga téye ko muy xatraayu di yuux lum jojo do ko bay mu dem jël mu dem jëli ko yermane day kon yermane yalla yermane deug deug lim laaj moy nit ki la koy jari nga fexe bam jari ñoko ak donte neexu ko la koy lor nga fexe ba muccu ci ak donte metti nako donte yéen ma jaar da koy metti sax nang ci jaar lolu moy deug deug yermane motax yàlla mi ëpp yermane ci jamm dana tek nit ki ay 10 10 ngir ñu jot ci aw yiw dana len tek lu naqari ci ñom ngir musal len ci awaay waaye musiba mu ñu gis ci àdduna ak lu mu naqar naqar rek nañ dugg jàpp nañ ci biir cadre yërmande yàlla dugg ndax yàlla moo ëpp yërmande ci lépp moo ëpp yërmande ci nit ñi ci seen jëm bopp loolu dañ koy misaal ci ni way jur wu bëgg doomam dëgg daf koy jaarale ci yoon wu wum yaroo ba tax mu mën a am avenir a mën a baax ak loolu lu métti métti ci moom moo xam daf koy jàngal mën na koo dóor mën na koo pini ma man man na koo xañ ak lekk man koo xañ ak naan man koo xiifloo man ko man koo marloo ba ci jéng sax man nañu ko indaale mën nañ ko mën koo jëng sax waaye fekk lépp nag fàggul ko avenir moo tax ngay def loolu kon loolu yërmande woy way jur dëgg way jur wu am yërmande te xam li muy def ci doom mooy la mooy daf koy teg lu diis te lu diis la mu koy teg ndimbalam lay doon ëllëg waaye nag saa bu nit ki jàppee ni doomam daf ko war rek di kopp koppal du ko neex neex na ko di la sëñ Mouride Gallo nga daan wax naan xale de boo ko jooyloo dana la jooyloo dana boobu dana la la mas a jooyloo. mi ngi mel ni yërmande yi xam li muy def ak yërmande yi ku def docteur xool ba gis lii tax tawatam jiwal mooy dañ ko war a opérer. yaay ji laaj ne luy opéré ñu dañu xotti biir bi mu ne loolu sama biir doom kenn du ko xotti bàyyi bi nañ xotti waaye bàyyi bi nañ xotti moo ëpp yërmaande parce que dafa xam ni jàmmam fii la mën a bàyyi ko kenn nag yërmaande ji yërmaande yi ku xamul dara la kon yërmaande dëgg dëgg dëgg ki nga yaram danga ko teg lu diis waaye fekk ne dafa am loo koy fàggul moo tax nga di ko teg ma ni kon bépp musiba buñ gis mbaa am nattu moo xam ak ñàkk la moo xam tawar la moo xam lu maa doon suñu borom teg ab jaam rek lay ak rafet njot ci suñu borom mooy nga gëm ni ci yërmande la waaye da ngaa xamut xikma ba da xamut la la waral mu def ko waaye nag nit ci ak umpaleem yàlla nag mën naa tuumal yàlla jàpp ni lii moom xaj na daa amul yërmaane mbaa daal lii mbaa daal la waaye fek ne ñàkk xam moy tax muy tumal sun borom waaye bu ko bu xamone deug deug rek dina xam ni li moy li gën ci mom amna ben hadithul xadisul wu yu minat yonente inna minan nasi man la yuslihuhu illa al ilmu walaw ajhaltuhu la afsadahu dhalik nit ñi amna ci ño xamni la leen mëna defar moy xam bu ñu reeron dañu yàqu وإن من الناس من لا يصلحه إلا الجهل ولو أعلمته لأفسده ذلك نيت ني امنا ني اك رير كيب سي لني مانا جار بور دافارو بون خامون دانيو ياكو وان من الناس من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك امنا سي نيت ньо خامني ام كوم كيب لني مانا جار بور دافارو بون نياكون دانيو ياكو ومن الناس من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته la afsadahu dalik am na ci nit ñoo xam ni ak ñàkk dong lañ mën jaar ba defaroo bu ñu amoon dañuy yàqu kon suñu borom lépp lu mu def xakim la ci xikma la ko teg bu leer nañ ñi lañ lay tawxee ci nit ki mooy mu rafet njort ci boromam ci lépp luy neex ak luy naqari dolli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëllëg day ñi amoon ay tartar ci àdduna ñi ñi amoon jàmm danañ ñee ñi amoon ay tartar ci àdduna ngir yiw ngir buñ gisee yool ba ñu leen defee ñi amoon jàmm fii ci àdduna buñ gisee lañuy ñuy fayee ña amoon ay jafe-jafe ci àdduna daal ñu woon sax ñu jëloon ay sisu di di sisu seen yaram yi ngir yool bee ñuy seen ak xeemantef gañ cee am te fekk faat na moom la sëriñ bi junj ci benn bayit ci masaalikul jinaan ni ahlul bala laysa lahum mizaanu wa sa yunsharu lahum diiwaan ñi suñ boroom tegoon ay nattu ci àdduna kenn du peese seeni jëf kenn du leen indil ab téere ëllëg naan lii ngeen def ak laa ngeen def dañ leen di sottil yiw yi rek moo tax am na ci jeexiit yi ñu nett li jële ko ci ñenn ci saxaaba yi am sax ñu ko raf mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ki ñu nattu boo ñëwee di ko ñaanal yàlla naan yàlla yal na nga ko yërëm yàlla day wax ne waaw nan laa ko yërëmee ci yërmande lii ma ko teg ab yërmande laaj jul nga may ñaan ngay ñaan ma yërëm ko ci yërmande ji ma ko teg nu ma ko yërëm nu ma yërëmee nit ci yërmande ji ma ko yërëm kon da nga ñaanal nit bëgg yàlla tegil ko nangam nga jàpp di ko ñaan yërmande fekk loolu ñu ko teg jëm yërmande ju taxawal kayfa arhamuhu min shay'in bihi arhamuhu nan laa ko yërëmee ci lëf loo xam ne ci laa ko yërëmee beneen xadis bu ni suñu borom bu bëggee ab jaamam dafay dox digganteem ak adduna ci adduna ni nit di doxi diggante aji tawat ak lekk gum bëgg te baaxul ci moom sab malaat lekk gam bëgg te baaxul ci moom na nga ko koy teree noonu la suñu borom di teree ñenn na ci jaam yi bànneexi adduna ngir xam gum xam lu lor lor ju ca nekk seen diggante ñu kon loolu lu mu rek ci yërmaane yàlla la dugg ndigal yi suñu borom digal doomu aadama digalu leen ko ngir ittawoo gum ittawoo ndigal yi terewu leen lim leen tere it ngir nay gum nay ci seen kaw waaye lu ci ne ab test la bu mu leen teste di xool ba xam nuñ cey doxe jeexiti yërmaande yàlla ci kaw suuf nag dañuy wax ni bépp xéewal boo gis ci àdduna xéewal gum doon rek ci jeexit yërmaan yàlla bokk xéewal gum doon boo fee xéewal nag bala ngaa xool kër gu rafet walla ngay xool oto bu rafet wala ngay xool mbumu rafet wala ngay xool lekk gu neex jëkka la xool sa jëmmi bopp ngay jëkk xool xewal gi la ci yàlla defal muy xoolal xéewalu bët doo ko xam ndax ñàkkoo ko xoolal xéewalu nopp li ko am moo tax mu ëmp la xoolal xéewalug làmmiñ li nga ko am moo tax doo xam la muy saf dëgg-dëgg xéewalug tànk bëgg a dem jóg dem xéewalug xel fu ne sa xel daj ko lu lu lay jariñ ak lu lay lor lu ci ne sa xel jox la ko googu xéewal ba tey ki ko am du ko yëg waaye ku ko ñàkkoon ba am ko danga xam li muy tekki motax tax yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. ci ben hadith bu wer mo wax ni sunu borom dafa yabal am malaika ci ñetti nit Ki silmaxa la bu amul ay Ki ki dafa xang amul kawar ki dafa ramu ba ñepp diko moytu diko daw ñu mu yabal malaika mu di len tassé mu ñew laaj ni ko lo gën bëgg ci aduna mu ne ko li ma gën a bëgg ci àdduna mooy yàlla dellusi suma jës bi may jës may jës jës lépp rek mu ñaanal ko suñu borom mu delloo si jës ba ne ko loo gën a bëgg ci alal mu seet li mu gën a bëgg ci alal mu mébét ko ne ko su ma amoon nag su ma amoon gileem mbaa su ma amoon ab xar am xar mu mel nanga mu nanga mu ñaanal ko suñu borom may ko jur gu mel ni gam bëgg mu dem ci ki amutoon kawar ni ko loo gën a bëgg mu ne ko li ma gën a bëgg mooy kawar gu kawar kawar kawar bopp mu ñaanal ko suñu borom mu ak koor mu ne ko loo bëgg gën a bëgg ci li àdduna mu tànn lam gën a bëgg ci diggante gileem ak nag xar ni ko lii laa gën a bëgg mu may ko ci jox ko ci loo xam suñu borom dafa ko meññal bu mu daal di yaatu lool ka ca des mu dem ci moom ne ko loo gën a bëgg ci àdduna mu ne ko li ma gën a bëgg mooy ràmm gii mooy nit ñi moytoo di ma dawee wér ba ma mën a am yaram wu rafet mooy jaaxasoo nit ñi nekk kon lu ci ëpp ci xéwal bu ko nit ki amee du ko yëg waaye bu la ko xañoon la ngay gën a bëgg ci àdduna mooy loolu bala ngaa bëgg leneen léegi nag nee na bañ koo mayee yaram wu rafet laaj ko lu mu gën a bëgg ci alal mu seet la mu gën a bëgg ci alal mu mébét ko ñu dema dem ba kenn ku nit ñoom woomal lool suñu borom yabalaat jëmmi benn wax wax ki ki ràmmoon ni ko daa bëgg nga may ma nga dimbale ma genn gileem mu ni ko ak ah, gileem si bori bori daa bari jafe daa bari loolu xel xalaatu mu ni ko ah, yow mi xàmmewuma la ndax mosoo ràmm mu ni ko dee mosuma ràmm mu ko mosoo ñàkk loolu mu ni ko dee alal ji ko dana mosuma ko mosuma bu fekkee li ngay wax dëgg yàlla na la yàlla delloo mu daal di ñàkk alal ji delluwaat ràmm mu dem ca katales ni ko dama bëggoon wenn nag woo mu ndax dama ñëw ba fii sonn nangam mu ni ko aw nag porte yeeg loolu kay xel xalaatu ko mu ne ko waaw yow mi xàmme wala ndax mosoo fee mosoo xàng nii doon ak mu ne ko déedéet nii laa ma samee mu ko mosoo ñàkk loolu mu ne ko déedéet lii samay maam ci laa ko dana mu ne ko bu fekkee li nga wax dëgg yàlla na la yàlla delloo ci la nga nekkoon mu daal delloo mu dem ca kasil ma xawoon kooku nag la ci yonte bi cité mu mel ni moom mooy sant xéewal gi ko suñu borom defal ndax yëg-yëg bi mu amoon bi mu ko amaa li mu ñàkkoon bi mu ko amee bi mu ñëwee ya, dañu ko léegi jaay yàlla jàng nangam nangam mu ne ko lépp lu ma sun lu ma nit ñaan ngir jëm yàlla dinaa ko may ngir dama meloon nangam meloon nangam meloon nangam mu dama silma xool mu may ma delloo silma sama jës ma ñàkkoon may ma alal kon lu ma nit ñaan ngir jëm sun borom dinaa ko jox mu ne kon dama doon testé yëpp soxlu ma ci sa ji dara demal ak sa alal yàlla na yàlla ba defal bari waaye lu ëpp ci nit ñi nag xéwal gën yàlla defal duñ ko xam te buñ demoon ba ñàkk ko sax mën nañoo fàtte mën nañoo fàtte xéwal ko gi mu leen defal muy hmm. buñ demoon ba ba ba ba ba ba buñ ko ñàkkee duñ xam xéwal gi te buñ demee ba am li leen suñu borom ba am xéwal gi duñ yëg duñ duñ yëgati ni yàlla li yàlla moo leen ko defal dañ koy fàtte waaye kon xéwal gi gën a rëy ci xéwal yi suñu borom wàcceel doomu aadama ci kaw suuf mooy xéwalu njub te mooy yónni yonente yi wàccee téere yi ñu mën a génne ko ngir muccuk àdduna alaxir daa nekk ci biir bu dee yi ci des yépp nag ay xéwal la waaye am na fu mu yem ndax bu dee wér gi yaram saa bu wéree di ñëwee xéwal googu jaan léegi nit ki bu fekkee xéwalu dund la saa bu dee ñëwee xéwal googu jaan xéwal goo mën a am rek am na fu mu yem ba mu des xéwalu jub jub mooy li ànd ak nit ki fii ci àdduna ànd ak moom alaxira kon xéwal gën a rëy ci xéwal gu suñu borom defal doomu aadama yërmaande ji gën a rëy ci yërmaande ji mu ko defal mooy wàccee alxuraan yónni yonente yi pour ñu mën a génne ko موتاسن بروني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يرماندل وبشرى للمسلمين آية القرآن دي ملل القرآن وحني هدى ورحمة للمؤمنين موي القرآن اك جبلة يرماندل تي جوليت دلوارني ورحمة للذين آمنوا منكم يرمان يرماندل تي ني yërmande la ngir moo sabab sunu ngëm te ngëm gi moo leen di may mucc ak tax ak ak alaaxira kon yërmande la wërsëg yërmande la sunu borom dana ko tuddee yërmande wërsëg ndax ku ñu wax ay Ikrima ci aaya alxuraan bi wax ni ibtigaa rahmatin min rabbika tarjuha rahma jooju risq la ko firee moom Ikrima kon wërsëg ci yërmande yàlla bokk ab taw yermande yalla la sun borom tuddina ab taw mu yermande yursilu yursilu riyaha nushram bayna yaday rahmatihi motax kon ab taw sun borom tuddina ko yermande al janna yermande la wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun kon al janna batay yermande la gëna buñu jàngatee nag arrahman ak arrahim ci mu doon melo yu suñu boroom lan lay jariñ jullit bi moom jullit bi lan la mën a jariñoo ci ñaari tur yooyu cër bi mu ci war a jëkk jikkoo mooy jële mooy xadis boobu wax na ngeen di jikkoo jikko yàlla mooy na jël baatub rahma yër melokaan woowu jéem koo melo damay wax nit ki bu jëlee rahma rahman di woo suñu boroom ci turu ar rahman na ko ci woo di bëgg ne waaye nag na bàyyi xel ni sifa boobu suñu boroom daf ko soxla ci moom mu jéem ko melowoo digganteem ak jullit yi jéem a jël melow yërmande melowoo ko arrahman li ci jullit bi jariñoo ci baatub arrahman nga xam ne mooy melow suñu borom bi daj kapp adduna ak alaxira daj ñi baax ak ñi bon daj jullit bi ak yéefat bi la ci jullit mën a jariñoo moom mooy yërëm ñii sàggan di mooy yàlla yërëm leen ci mbugalum yàlla mi leen di xaar au mu di leen bañ mbaa mu di leen mere na leen yaram bay sàkk pexe ci ñu jub ñu jubbanti ko loolu mooy li jullit bi war a jàng ci turu arrahman muy jaami yàlla yi juba jub yi dëng nga am ci ñoom yërmande bay sàkk pexe ci nuñ mën a noo leen mën a jubbanti rek nga def ak mooy yàlla goo gis ci kaw suuf jàpp ni yaa ko mooy di sàkk pexe ci mu daj ngir yërëm goo yërëm ka koy def ci mbugalum yàlla mu ko war a feeñu waaye dañoo wax ni cër bi nit ki war a cëroo ci turu arrahim mooy képp kum gis mu doon ak faqiir mu taxaw temm ci euh, ci ci mëddal ko ñàkkam googi ku doon ku doon ku ñàkk nga taxaw temm ci ñàkkam googi nga faqal ko dëkk bi nga dëkk quartier bi nga dëkk loo am boole leen ca comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni boo toggee ñeex ba xet gi mën a xeeñ ñi nga xam ne dañoo dañoo doon say dëkkandoo nanga fexe ba yaatal ñeex ma ngir nga ma leen ca mosal loolu ba tey nit da koy cëroo ci turu arrahim kon jaam bi am yërmande jël jikko ci jikkooy suñu borom jooju muy arrahim jël ci aw melo mënta ñàkk muy dox ci lépp luy ak ñàkk ci kaw suuf mu fexe ko fanq lépp luy ak néew doole ci kaw suuf ba kenn du ko ñaaj ñu xamee ci yaatu yërmande Sëriñ Tuubaa ci jaami yàlla yi ndax ñetti bayit a ngi nii yoo xam ne rahmaanu hëpp لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ فوفو من في كل نعم لجميع الخلق له دلو عن وخ نعم الخيط يوم تبين حد أمة المصطفى عن كل مفسدة نقلن بيك تلبل أجاق وين قال ترحم الخلق دفع دلو عن نعم يوم ما بول من ذي يا من جدهم بدأ دوغا انك بيد بيغا خمسة مو لي غنسي ولتي نيان غوم نيان نيب يرمان مو يا مالك يا من جل عن قود irham jamihal wara kon bayit yooyu dinañ ci xamee sëriñ bi ab xolam ci mbindeef yàlla yi sëriñ bu mii ñu nekk ci am pencam di ci waxtaan ji li gën a fës ci ay jikkoom mooy yërmande fa am yërmande ba tàggoo ak nit sax mënu ko lu ci ëpp ñaare booy tàggoo di tukki di dem dalay yeewi ni la bis sàngam mën ngaa dem waaye mënut jàkkaarloo ak yow nga tàgg ko woon ko ginnaaw nit dem daraan dis ci moom gan ñu xamee ci kon dëgg dëgg yërmandeem muy féetewoo gi mu féetewoo njàngaleem alxuraan jubbanti dëgg kon mooy nga yërëm nit ci mbugalu yàlla ëllëg yërmande jooju mooy jëpp doole nga doog a seet na nan ñoo ko yërme ci yërmande suuf yi waaye kon yërmandeem mi ngi gënoon a jëm ci mbugalum yàlla mu ëllëg la jubloon a fanqal mboolem doomu aadama yi kon téere bi mu taal ñu koy wax xuratul ay ni la cay nuru ay tartar lépp yërmande yërmande lay tekki la cay nuru ay tartar lépp yërmande lay tekki ngir xam la leen cay fekk buñ jaa sooboo ci ngeen mi mas naa bind bataaxel bu yàgg jox ko suñu sa xasida mu jàng ko fee ci kër jigéen sëriñ bi da caa wax ne da wax ne dama bëgg ngeen xam ni jege nit ci ak mbokk mënu la weesu diwoo ma jur wala maa jur diw wala diwa may denc te yonente yi gën ci yonente yi am na ci yonente boo xam ni baayam am na ci yonente boo xam ne doomam dem na sawara am na ci yonente boo xam ne soxnaam dem na sawara te dara tegu leen ko lu weesu ñàkk topp ndigal ak ñàkk a bàyyi ay tere su ma leen den wax na ngeen ni moomul sawara moomul àjjana àjjana moom moo ko su ma ko mooman yéen ñëpp ci dugg te mooy dëgg waaye kako moom lam wax ni ku ko def leen ko sama kem kat di ko jëm sama kem kat di leen ko digal ku def sa bopp ku def di ak caag safara moom ma ko su ma ko moom dama koy fay kenn ci yéen du ci dugg dama koy fay sax kenn du ci dugg far ma daan wax ni yërmaande sëriñ Souhaïbou boo ne picc yi sax xam ne kiwul mu baalax du ak xaabaabal du ak xaabaabal ku ne xam na ni fii ci keesu xay gi defal nañ fi am mbalka di fab ndox di ko ci sotti di tibb pepp di ko fi def ngir picc yi kon yërmaande yu dem ba ci mala yi ak njanaaw yi su borom joxoon na ko kon moo tax bu ñu jëlee sifatu rahma waxtaanee ko fii ci bërëb bi ñu ko waxtaanee béréb bi ñu ko war a waxtaanee ci lañ ko waxtaan yërmaande nag dafa am lu koy may nit ki te alxuraan saxal ni nangam mooy may yërmaande yooyu war nañ koo xam di ci góorgóorlu la ci njëkk mooy topp yàlla ak yonente bi wa ateexu والرسول لعلكم ترحمون كن بجك تي لوي ماي يرمان بو نغو توك يالا يونس صلى الله عليه بري لوي جيغلو بوك نتي لي ماي يرمان لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون تينغي ني جيغلو يالا الله لي يالا يرم لين واي رافيتال سا ديغنتك نيت ني سا كيم كاتل بوك نتي لي ماي يرمان لا سمبرن فوخ تي الخاني ان رحمه الله قريب من المحسنين مو فنتي قصه موسى ca ba mu jógee Égypte dem ba Madiana ba mu ñëwee ba jub dëkk bi mu gis mbooloo muy root mu am ñaari jigéen ñoo xam dañoo nekk fële di fekk seenu jur bokkuñ ci ñuy wëgg mu leen maa xab bu kuma luy seen mbir yéen ñu ni ko laa nasqi hatta yusdira ria wa abuna shafan kabir dañuy xaar ba ñuy root ba génn ñu doog a wëgg moom ci yërmande mu ñëw jàppale leen wëggal leen wëggal leen ba mu leen wëggalee ba noppi lu rafet képp la jubloon def ngir yàlla daal di tëdd ci ronu garab ni rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla di ajowoo naa ndimbal lool nes kii si rek kenn ci ñaar ñooñu ñëw ni ko sama bàyyi la soxla daf lay fay li nga nu wëggal ba mu koy wëgg daf ko def ngir yàlla waaye li ma wax ni inna rahmatullahi qaribu min al muslimin ihsaan la defoon waaye ca saas la yërmande yàlla daldi tàbbite mooy wërsëg um daal di am léegi fajaatu ihdahuma tamshi ala istihyaa qaalat inna abi yad'uuka liyajziyaka ajra ma saqaytana kon loolu bokk na ci liñ may yërmande yàlla yërëm jaami yàlla innama yarhamu llahu min ibadihi arruhamaa yàlla ñi mu yërëm ciy jaamam mooy way yërëm waaye bokk na ci lii sabab yërmande yàlla ba tey nangoo sax ci jàkk ginnaaw jëkk julli ak ginnaaw julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni kenn ci yéen du dañ di nekk ci ak julli li fekk mi ngi xaar ak julli li fekk yaa ngi xaar ak julli yaa ngi julli daal di waaye malaayika yi dañ di julli ci kenn ci yéen li fekk mi ngi ci béréb ba jule jullee woon di wax ni allahuma axfir lahu allahuma arhamhu di ko ñaan yërmande kon nangoo yàgg ci jàkk jëkk ñu julli ak ginnaaw buñ jullee bokk na ci lii sabab yërmande yàlla naka noonu seeti ku tawat bokk na ci lii sabab yërmande yàlla te yonent bi wax ni képp ku seeti ku tawat yaa ngi xuus ci biir yërmande ba ba ngay àgg boo àggee ba toog nag nuur ga dangaa nuur ci biir dangaa nuur ci biir yërmande jooju waaye yonent bi suñ boroom daf koo taggee yërmande ci آية بلخد جاءكم وحنا سنبي المؤمنين الرؤوف الرحيم يونم تبي تق أبو بكر تير مانه وحنا كي جنا يرم سما خير كي جنا يرم سما خير وي كي جنا كي أبير مانه كي سما خير وي مو أبو بكر أرحم أمتي بأمتي أبو بكر نكنا نكون بري لوي نان يرمانه يالله بكنسي سب يرمانه ak ñàkk naagu yërmande yàlla ndax wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun kenn du naagu yërmande yàlla kudul ku réer kon loolu yi mooy li waa waajaloon ci wàllu leeral arrahman arrahim ngir euh, munaasaba bu am ak penc mii ak borom penc muy seen Suhaybu euh, ñu leeral ko ci ni alxuraan andee ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa ci xolam ci mbindeef yi ak yéen ji am ñoom ak yërmande ji am ci ñoom Sëriñ Suhaybu ci yërmandeem ju yaatu ba àgg ci mala yi sax xam ko loolu yi kon mu doon dërs boo xam ku ne war na cee bàyyi xel di jàngat te xam ne nit ku ne mën naa doon lu ne nit ku ne mën naa doon lu ne fu ne war nga fa a àgg ku ne war ko mën a doon euh, li ñor suñu borom ci nit ki rek mooy mu sóobu ci aw yoon waaye yoon woo sóobu yi mu jàppale la ca kon nan suñu borom defal ak dégg ak ku topp defal nu tawfiix defal nu ak mucc ak xewal defal nu yërmande ju sax dàkk def ci suñuy xol yërmande suñu diggante jaamam yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu